seetlu nañ ne daal li mu mel ne bu koor ñëwee nga gis ah, xam-xam ni muy yaatoo ni muy ni muy tasaaroo ñëpp di ci jariñu ñëpp bu koor jàllee di la wax ni wax dëgg yàlla ku nga xam ne yokk nga baax baax ci sa diine ak ci suy bëree bëri xam-xam yi xam dafa day dafay day jariñ ñun ci bu koor ñëwee wax dëgg yàlla kenn ku nekk da ngay yëg sa bopp ne yaa ngi jariñu ba tax na loolu mu dajale fi ay borom yi ah, xam-xam yooyu it ñu ko jàllale fii su ko defee ñépp di ci mën a jot kon yaatal xam-xam lu am solo ndax li ma koy waxee ne comme lu bon moom fu mu ñu ngi ko yaatal di ko jox cër bu rëy rëy kon lu baax it naka noonu kon ñi ñi jàngalee ka di di yare ñoo duñ tàyyi nañ ca nekk rek comme nii ah, ndax it ñi fi ne ñi fi dajale ñëpp gis nga ñu it wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ndax kaay ñu yaatal xam-xam nga ànd ca ñoom it woyof lool comme daal wax dëgg yàlla borom xam-xam yi ñu ngi leen di ñaanal boo ñu yàgg fi lool di mën a yaatal xam-xam waaye di jéglu baax nag mbokk mi di wax ak yéen eh, mi ngi tudd Xabaan Diop bokk ci waa Alhibaadatoul Xidma yi ñëw tey ngir am tomb boo xam ne bëgg nañ leen koo gaaral waaye ci ñooñu ma ànd ceeg sëñ Abdou Jalil Silla ànd ceeg sëñ Saalihu Fall ànd ceeg Sëriñ Mbay Jaañ ànd ceeg imam Abdoulaye Diop ànd ceeg sëñ Maam Balla Diop ak sëñ Balla Mbeng moom nga xam ni ñu ci biir daara ji ah tomb boobu nag eh, xëy na mbokk ñoom buñ ci ñëwee ñoom danañ ko yaatal ba ñëpp xam tomb boobu mooy ban tomb waaye man xëy na man ci xamle alibadat wala xidma rek ci ci laa duggee nii xëy na nag ñun ñii du ak bari xam-xam wala ak ak am ak daraja wala dara waaye xëy na am yónnil rek ak it bëgg lu baax gën a yaatu rek tax bu ñu nee demal defal ma nàngam doo ci am doo ci xaaj rek loo ci seen waaye am na ñu ñu ko dàq fuuf gën ñoo mën li ñu def waaw gën ñu ko mën foofu nekk ci nekk foofu kon euh, alibaado waxit ma googu euh, sëñ Xaalim Jóob mi ko ubbi ci yaatal xam-xam rek moom it la ko la ko jëme ba tax mu wut ay xam-xam yu fasantikoo euh, ay boroomi xam-xam ci wàll gu nekk ci wàllu diine wàllu adduna bi maanaam médecine loo mën a gis rek xam-xam ba cay ba ba nga xam ne dana dana julli bi dana ko yittewoo wala doomu aadama di ko yittewoo ci addunaam danañ ko wuti indi ko ci biir daara ja ba comme it ni comme ni mu ko séddalee it bokk na ci lu mel ne boo xoolee kuréel yi nekk Touba rek nga gis ay Radu Rayaahin ay Sabinatul Amaan Muxaddamatul Xidma ku ne dafaa jël ay nit dugal ci biir ngir gën a yaatal ba ci kër diine yi kër gu nekk ñu jël fay nit pour bëgg diine jëpp gën a gën a nekk benn jullit ñëpp gën a ànd doon nekk benn loola kon mooy mébét bi ci wàllu daara ji waaye ni ma ko waxee woon ci wàllu xam-xam ak yaatal ko ak am solo ak am njariñ gu mu am njariñ ndax dangay gis ne réew mi réew mu la raw rek li mu la rawee ci xam-xam la la rawee àdduna fii mu toll nii ci jàppandal xam-xam a ko fa yóbbu kon xam-xam lu am solo la lu mata yaatal la waaye it wax dëgg yàlla jullit ñi bendoo seen seenu bennoo ci la lu ne xaj waaye seeni tàqaliku it gis nga ko nii ñu leen demat par benn benn lu di leen demat waaye bu ñu àndandoo nekk benn wax dëgg yàlla kon danañ am doole jox xam nii kenn xamut doole ju ñu toll ndax dañoo ndax li am daa jafe dañoo ànd ak yàlla ki ànd ak yàlla nag ak ak dooleem ak kàttanam daa bari ba tax na képp ko képp kon booy làqu rek làqu ci gannaaw suñu borom mi nga xam ne moo yor moo yor doole jëpp te kon ñi nag seen borom mooy seen kàttan boo xoolee lu doo demee nekk xare ba daal nga xool lim ba ni néew woon waaye ànd ak ñu ànd ak seen borom ak dëgg moo leen may ndam kon jullit ñi ànd googu buñ ko àndee rek ci bennoo ci ku ne yéene sa borom jàmm rek lépp lu ñu songu danañ ko daal waaye xam naa kon sama mbokk yi bu bu ñëwee ci tomb bi daal danañ ko gën a yaatal waaye ci li ma toog li ma li ma tëboon rek ci xamle Al Hibadatul Xidma ne kuréel kuréel la goo xam ne nii day yëngatu ci ci lépp loo xam ne dafa soxal adduna bi dafa soxal doomu aadama bi ba tax it li xëy na ma ma xam ne tuuti ci ay ay réalisation yoo xam ne def na ko ay liggéey ci comme li ñu waxee euh, xidma ji xëy na ay jamono euh, bëggoon nañ fee daaneel lu demee hôpital Matlaboul Fawzayni ba ay boroomi xam-xam fii ci biir daara ji dox ci ay jéego ah ba loola mujjut am kenn daaneelu ko ba tey hôpital ba gis nga ko nga xam ne kon ay milliards yu bëri naroon na yàqu foofu ci ay ci Mali faro gannaaw yàlla ñoom ñoo ci dox ay tànk ba ba loolu daane duñ ko gannaaw yàlla it bi corona bi ñëwee nga xam ne yàggul ay ay ay état bi ci boppam ne néew yi faatu Europe kat dañ leen dañ leen denc foofu ndax bu ñu indi fi mën nañuy wàllaate loolu it bay ay boroomi xam-xam jóg taxaw di ci wax ba wax ji jëm kaw ba ba ba xëy na ñu ko yëkkati woon ñoom yëpp affaire mbir mu yëgg seen kaw ñu mujj tomb bay ñu tegal ko suuf ba kon sax ñu bari sax bu dara jógee ñu ne ah yéen war ngeen cee wax seen xalaat ndax bari na lu ngeen di wax suñu ah, loolu loola loola wax dëgg yàlla saafarawu kon it tomb bi lii xam ne ñu ngi koy dox yàlla na ko suñu borom saafara ah, di jéggulu ñëpp ah, kon sëñ Abdou bisimilah. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Tahawuna fi diini wal xayaat seen mbokk Abdou Jalil si na moo leen di nuyu bu baax a baax a baax leen ziara di am mbégte bu baax di saa jotaay bi di jéglu baax xam naa mel na ni xam nañu retard ba waaye dañoo tënk loo loolu xam ne kay wax dëgg dañoo ci waaye dañoo tënk loo waaye nag ñu sant yàlla baax di ziar baax seen xaban jëm ci bunt bi ak sëñ Mourtala mu di ko siyaare bi di mu tegal ñu loxoom mboolem waa jotaay rafet lu baax dalal gu am solo gi xam ne jotaay bu tedd bii nga xam ne biñ ñu dugalee biñ ko yóorloo day man ne ñun ñëmuñ sax yëkkati fi kàddu ndax wax dëgg yàlla borom xam-xam yi ci biir tañ xam leen ñu bari fi lool wax dëgg yàlla lépp di di borom xam-xam tañ xam leen baax te xam seen xam-xam xam ñu niñ doy de seen kanam ñu yëkkati kàddu seen kanam kon loolu day doon loo xam ne ndigal lay doon waaye wax dëgg yàlla biñ leen gisee ñoom ñun amatuñ fitu wax ndax kuy wax ci kanam borom xam-xam ngir nga wax day xaw a jafe na waaye sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi di rafetlu bu baax teewaay bi di ñëw ci kàddu kàddu yu gàtt yoo xam ne eh, alxibaad wal xidma ñooñ jox seen kàddu wax looñu ci liggéey bu solo bi nga xam ne ñoom ñi ngi koy tax muy alxibaad wal xidma yaakaar na suñ xabaan sax Euh, présenté woon na euh, présenté woon na fa alxibaad wal xidma leeral woon liggéey bi alxibaad wal xidma kenn ku ne xam ne day liggéey groupe boo xam ne ab groupe whatsapp la boo xam ne wax dëgg yàlla yaatu na ndax yaakaar naa mi ngi ci juróom wala juróom-benni groupe te alxibaad wal xidma kenn ku ne li ko xamee mooy yëngu ci wàllum xam-xam jàng ak jàngale ni ko tur wi euh, wuyoo rek muy liggéey ak jaamu yàlla waaye dafa doon groupe boo xam ne aussi tamit dafay yëngu ci social waaye di yëngu ci développement waaye di yëngu ci actualité yaakaar naa nag euh, développement ku koy wax rek yaakaar naa lislaam moo ci moo ci gën a pare pour pour man koo def kon Al Hifadatou wal Xidma loolu mooy yëngoom euh, fi mu ko tàmbalee nag mooy dafa dajale ay boroomi xam-xam yu bare bare bare bare ci fànn bu nekk mu ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu nasaraan mu ñu seen xam-xam jëm màcc jëm ci wàllu nasaraan waaye seen xam-xam tamit màcc tamit jëm ci wàllum diine waaye ñooñu ñëpp tamit buñ ne ki xam-xam ñu wàcc kooku yaakaar naa kon borom doomu tànk bu ne mën na fa nekk ci fànn xam-xam bu nekk kon dajal na borom xam-xam yëpp bu dee médecin ak leneen lu man doon lu nekk waaye bu dee ci waxal mu xam-xam diine tamit yaakaar naa bu ko waxee kon danañ lépp luy diine dara jaaxul leen ci ah bi ñu taxawee ci taxawaay boobu nag ba pare ñu ngi ko defee social waaye développement ñu xam ne kon développement nag bàyyi xel sa doxin réew ci la bokk ah biñ ko defee yaakaar naa sëñ Xaadim am xalaat bu mu andi woon xalaat boobu nag jàpp naa ne maa xam ndax audio dugg na am de ndax ndax maa xam ndax jiitu ñëw fa mu dee muy sëñ Fall Mbàkke Jumaada ak euh, sëñ Xaadim ak Datoon Njaajo yaakaar naa bu fekkee digul ngeen seen ñetti audio yooyu sëñ Xaadim bi mu génnee xalaat boobu mbokk yi baax yi àddi ci ñu waxtaante al ibaad wala wal xidma ba déggoo ci ñu xam ne kon xalaat la boo xam ko war a génne yaatal ko ndax laata moo génte al ibaad wal moom jàmbar càmbar nañ ko waxtaan ci seex ko borom xam-xam yëpp tamit liggéey ci suuf tamit lu bare bare bare doo ko xam ne kon xalaat bor a génn la xalaat bi mooy ban xalaat mooy xalaat nga xam ne jullit ñi war nañoo bokk ci réew mi ñooñ daara suñ ne ñooñ daara nag lim tënk day bari ñooñ daara buñ ko waxee ñi ñu tënk day bari mboolem kii képp ko xam ne bi yaa ngi bàyyi xel daara ci nga bokk duñ ne rek mboolem jàng wala ñu jàng xam-xam euh, wala ñuy jàngale yi rek ñooy ñooñ daara waaye ñooñ daara mooy képp koo xam ne rek sa yitte day sa eh, daara day sa yitte boo jàngee français bu tamit ba noppi am sa lijaas yëpp ci français bi tamit ba noppi wëlbati ko sa yitte di la daara tamit yaa ngi ci waa daara ndax yaakaar na daara ma aw tur la bu ngeen xoolee université mag bi sax daara ñu mag li nga tuddee waaye loolu li may mooy rek bu ñu nee ñooñu ñu bañ yeen dégg ne jàpp ne mooy ñi nga xam ne ñoo nekk taal jàng yi moo tax ñoo ñooñu daara waaye université yi bu xoolee xam ngeen ne am na fa ñoo xam ne Euh, ay ah, gis ngeen fa euh, kuréel daayira yi yu murid yeeg tijaan yëpp ñu ngi ci biir kon jàpp naa ne ñooñu daara nekkul ne rek ne ñu jàng alxuraan rek wala ñu nekk daara alxuraan rek wala ñu nekk taalu jàng ñoo nekk ñu daara yaakaar na bu ngeen xel baax tamit ñetti kàddu ñetti audio yi ci kaw muy docteur Ndiaye Diop xam-xamam bu ngeen ko xoolee docteur la boo xam ne jàpp naa ne kon français ci la jàng ba am docteur am ba nekk docteur ci hôpital bu ndaamaatu wax dëgg yàlla liggéey liggéey ba rafet kon ngeen xam ne bu ñu leen daara yaatal nañ ko loolu pour ñu ñu def si noonu ñu bàyyi xel question boobu xam ne bu ñu nee daara rek doonu tënku waaye dañ jaar lu la. ah ñu ne ñooñu nag dafa am fu ñu leen classé réew mi mooy dañ leen classé ñoom kat ah, seen warugar ci réew mi mooy derba ak jàkka ja ak kurus ja ak daara loolu nag ñoom ñun ñu xalaat ne loolu tuutee tuutee wax dëgg ay nax la tamit yoo xam ne jot nañu yeewu ci jot nañu yeewu ci donte nag am na suñu kilifa yu baax yoo xam ne ku mel ne sañ si xam ne Mbàkke Gaynde Fatma ñoom ak ñi mel na moom ci seen i jamono nañ ko xeex waaye booba nag xeex ba dafa mel na jamono nii mu demoon mooy ni am tey ji amutoon ba tax na kon ñu néewoon doole ci xeex ba waaye ñun nañu xam ne jamono ji kon ñu war nañ cee mën a jiyam ndax wax dëgg yàlla am nañ moyen xeex ndax moyen ni benn ci fii ñu nekk rek tey ji benn moyen la ci moyen xeex kon jàpp ne war nañ cee mën a xeex dëgg yàlla ñu xam ne nag euh, fi ñu nekk bu ñu a jógee mooy nañu war a bokk ci doxalin réew mi bu ñu ko waxee nag mooy bu ñu nee doxalin réew mi yaakaar naa ñun yëpp xam ngeen ne kon ensemble ensemble national moom ci doxalin réew mi ci la bokk ndax sart ndey réew mi yi nga xam ne moom la ñu àtte woo yëpp ensemble national fa lañ koy tëggee waaye gis nga ne tëgginu bon lañ koy tëgg te façon loi bu nekk la ñu indi boo xam ne ah benn loi boo xam ne ñi koy ñi koy ñi koy wote bàyyi nañ xel seen diine amul yaakaar naa fan yee gis ngeen loi fi jàlloon fan yi tamit gis ngeen démb sax gis ngeen loi bi fa wàccaat te yooyu yëpp ñu koy def tamit nekkuñ fa askanam waaye député yi état lañ nga xam ne ñoom bu ñuy wote du ñu wote seen diggante yàlla du ñu wate seen diggante ak askan wi leen faloon tànn leen waaye état la ñuy wateel ak lu mën a dañ koy wate kon loolu li ko mën a jëlee jàpp naa ne nag waa daara ñoom ñoom rek ko fa a jëlee waa daara mooy ñi nga xam ne euh, bu ñu ko waxee da ngay xam ne ñoom ay intellectuel lañ mën nañoo yorum réew bu kenn ne waa daara nag ndax question bi day jóg lu bari bari moo tax ñu koy leeral nit ñi dañoo jàpp ne bu ñu nee waa daara ñoo war a dem ñoo war a war nañoo a taxaw ci ensemble dañu jàpp rek ñu nekk daara ja rek te taal jàng ñooñu ak seen xam-xamu diine boobu ñooñu rek ñooñu waa daara déedéet alimaari wal xidma dafa doon kuréel boo xam ne dafa dajale borom xam-xam bari segg leen ba ñooñu mën a yor am adduna mu la am réew waaye adduna mën nañ ko yor ndax am na boroom xam-xam yoo xam ne mat nañ ci mboolem fànne xam-xam ñu ne kon ñooñu war nañoo daje jéem a taxaw bokk ca doxalin réew mi suñu waxee loolu nag dañ ne da ku ko dégg da nga jàpp ne euh, politique la ñun dañuy politique war nañoo sos parti politique waaye ngir bëgg a leeral man mën nañ ne politique la ndax comme comme ci ku bëgg a jot ci réew mi politique moom euh, tur yu bonut doxalin yu ma bon ku bëgg a jot ci réew mi kon ku bëgg a jot ci dem ci ensemble mën nañ ne da ngay politique waaye nag politique ñun bi ñuy def ñun doonu ñun ñoo taxawlagoon parti dañuy politique waaye dañuy sensibiliser sensibiliser bi ñuy def ñun dañoo bëgg a sensibiliser jullit ñi ñoom ñu bennoo jullit ñi ñu bennoo bu ñu bennoo ñoom xool wan yoon lañu jaar ngir mën a bokk ci doxalin réew mi bennoo gi nag mooy ñun li ñu fas yéene dañ ko fii ñu dañ koo tàmbalee ci eh, groupe yi nga xam ne mooy groupe whatsapp yi ndax xalaat bi ci groupe la juddoo kon nag juddu sa biiru ndey bul xeeb sa ku ku ku mbir bu ñu la ëmbee yaakaar naa màgg fa du aaye moo tax ñu ne kon groupe WhatsApp yi nga xam ne ci la juddoo nag fi lañ ko fas yéene màggale par ndànk di sensibiliser nit ñi ba ak jullit ñëpp ndax niñ koy defee mooy dañoo bëgg a boole jullit ñi dañoo bëgg boole jullit ñi tàmbalee ci yi xaadir dañoo bëgg a boole jullit ñi muy xaadir muy tijaan muy laayeen muy ñaseen ak ku mën doon rek jullit lañu wax ñun muy ibaadu raxmaan lañ fas yéene bëgg leen a boole ci genn buum ñoom bu ñu bànde ci genn buum ba nag a xalaat ban yoon la ñu jublu waaye bu ñu leen boole nag dañ leen boole ci nga xamal leen ne kat li tax leen boole dañoo bëgg a àndandoo bokk doxal leen moo tax ñu a boole ñoom kon suñu kuréel bii moom waxut ak benn tarixa jullit lay waxal lay waxal ndax li bëgg mooy boole a bokki taxawaayu taxawaayu réew mi loolu nag ni ñu ko defee mooy ni ñu koy màggali noonu la ñuy continuer di fas yéene ko defee suñu ko defee nii ba nga xam ne jullit ñëpp dañ nañ nag boobaa ci la ñu doog mën a def def jóg buñ jógee mën a wër kilifa yi ak fu mën ñu mën faa dem liñ bëgg na mooy fépp boo xam ne jóg nañu jëm fa dañuy gis wet gi gis kilifa murit ci wet gi gis kilifa tijaan ci wet gis kilifa xaadir ci wet gi gis kilifa laayeen gi gis kilifa waa ibaadu rahmaan ci wet gi ñooñu lañ fas yéene tënk boole ci jën buum ñooñu fu ñu jóg ñooy ànd ku ñuy seet ñooy ànd seet la ku ñu waxtaan ñooy ànd waxtaan ak ñoom ñooñu nag bu ñu booloo bu ñu leen boolee ñoom ci benn buum ba ñu pare dañoo fas yéene def nag dañoo ensemble moo xam ne woote daje ko boo xam ne bu ñu ko dajee ah ñoom jullit ñoo ñu dajale ñooy tànnal seen bopp ki leen a jiite wala boog ñooy tànn boog ban jubluwaay la ñu am ban jubluwaay la ñu am kenn ku ne xam na ne waxtu yi ñu toll nii réew mi ak ñun li ñuy woote woo am récépissé du ñu yomb ci réew mi am récépissé du ñu yomb waaye jàpp nañ ne nag suñu booloo am na fi ñoo yoo xam ne wax dëgg yàlla ñuy xam ne récépissé yi ñun mën mën nañoo dooleel ñu booloo ba nekk wenn sa ñun jullit ñëpp ba pare mën nañoo fekk ñi nga xam ne nag ñu fekk mën nañoo fekk ku yor récépissé mu ko xam leer récépissé mi nelaw dañu xam ne kii ñu ne ñoom ñoo bokk benn jubluwaay ñu jël récépissé dem ci dem ci ci dem élection ndax li ñu soxla mooy jàpp nañ ñun julli ñi bu ñu booloo ni ñu ko bëggee ñun majorité moom mën nañu ko am assemblée nationale te bu ñu ku xam na ne fi ñu doon li fi xew ci jamono yi bari na gis nga Makhtar ko boo xoolee suñu Babacar Ndiome seen kuréel ci xeex wàllum euh, nuñ mën a fexe ba sàmm jikko yi ba durée ci la ci la nekk muy xeex jigéen ngóor jigéen ak lépp waaye gis ngeen ni ñoom ñëpp seen i kàddu buñ ko doole pare ak pétition yi lu bu ñu ko benn député mu yóbbu ko ensemble est-ce que nga ko joxe dana nekk député majorité ñoom kon li def mooy def ci ensemble bi jébaane rek ñu man kon nag ñun ñii nag kon nañu jébaane ñun nag dañu fas yéene mooy fexe ba fa ñuy jébaane ñun ñu fexe ba am majorité ñoo xam ne bu ñu amee majorité ñun ñooy xool li nga xam ne moom la ñu bëgg ñu di ko proposé état waaw même bu fekkoon rek ne da amuñu fa majorité sax dana mën a jéebaane ñun ba lu mën doon ñu bala ko bala ñu ko mën a jëf ñun ñu wilipaane ko ba ñëpp dégg ko waaye jàpp nañ nag war ñoo mën am majorité ku xalaat ne war ngaa am majorité ensemble nag war ngaa xalaat ne kon bis dana ñëw nga soxla réew mi waaw léegi nag loolu li ñu koy may ñun jullit ñu takku nekk benn suñu takkoo nekk benn euh, fexe def benn politique boo xam ne li ñu koy defee du caagi dañuy jël nit ki ne ko kaa ñu dañ léegi dañuy dig nit ki alal baa ñu jéem a politique nit ki ngir am nit ki ngir àll di ret politique bi ñu fas yéene tëral ñun xelu nit ki lañ soxla maanaam waxtaan ba ñun li nga xam ne ñu def ci nit ki ngir bi ñu ko def ci nit ki jàpp ne moom du moom moo tax ñuy def du ñun suñ jëmm ndax ni ma koy faral di waxee mooy ñun ñuy ànd nii kenn koo xam te yittewoo nga ak pal amu ci kenn ko am ci politique amu ci waaye nag lii moom dafa doon loo xam ne jihaad la ndax wax dëgg yàlla yonente bi sallallahu taala alayhi wa kenn ku ne xam na ne moom imaam la woon waaye siis la woon ku daa dem ci tool la woon waaye tamit ku daa xare la woon kon nag bu ñu royee ci moom benn jikko boobu ñun ñëpp war nañoo xam ne kon lu ci waaye nit mën a xam ak lu mën a am ci diine téerewul nag war ngaa bokk sa doxalinu réew ndax dëgg-dëgg jam jaamu yàlla mooy mooy euh, dund sa jaam yàlla na mu waree sa diggante sa borom waaye nag sa adduna tim nga defar ko noo xam ne danga nga mën a jariñ ñeneen jàpp nañ ñu nag yoon wi ñu jaar kon yoon la wax ne bu ñu fas yéene defar la suñu adduna bii la ngir mën cee xettali suñu njaboot la ndax jàpp nañ li ñuy xeex tey jii du pour ñun jàpp nañ ñun du pour ñun ñoo ci war a mën a jariñ ñun dëgg-dëgg waaye jàpp nañ du war a fallu tey dëgg-dëgg waaye gëm nañ ne ñun buñ ko defee dana nekk ëllëg suñu njaboot dana jiite réew mi wér a wér donte tey mën nañ ko jàpp waaye xam ne bu suñ ëllëgum suñu njaboot suñu njaboot moom njaboot diine mën nañu jël cent pour cent loolu nag liñ ciy dimbale mooy ñun ñëpp nañu xam ne kon am nañ responsabilité jàngal suñu njaboot gi alxuraan jàngal leen xam-xam waaye nañ leen dugal ci école nasaraan bi tamit ndax ba dëggal tamit réew kuy xëcc ngir jëm ci réew ma tamit war jéem a tamit xëccu xam ne tamit la ñuy doxalee réewoon ko jàngi donte xam ne tey jii ñun waa daara tey ñun porte nañ komba bi mooy ñun julli ni waaye nag mënuñ ca ñàkk ànd ak ak ñu ak ñu nasaraan ñi nga xam ne ñoo nasaraan lañ jàng ndax ci loolu la yore réew mi kon nag jot nañu nit suñu njaboot suñu njaboot ñu jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam waaye jàngal leen français ba ñoom ay lijaasa ba ni ñu yore réew ñu man ko xam am man koo xam ba fu ñu leen joxe am am réew ñu mën ko àtte waaw loolu na kon jot na sëkk ñu côté boobu ñu sensibiliser suñu njaboot loolu na bu ñu ko defee yaakaar naa mën nañu àgg mën nañu am li ñu bëgg boo defee kon ñu fexe tamit ba sensibiliser nit ñi ñu seen i carte xam ne nit ki aw carte am mooy njariñam mooy njariñam mooy addunaam kon waru koo jaay waru koo jaay ci ci ak njëg bu ñàkk ñàkk solo waaye war a xam ne awaniram la waaye awaniru njabootam la awanir ay sëtam sax ëllëg la waaw kon loolu ñu bàyyi xel baax a baax boo dee ñu sensibiliser ni kenn ku nekk ku am carte di wat nga nammaat ko ba mu saytuwaat ko ba mu xam ne am na fu wóor fa ko rootee boo dee nga téye soo kaat xam fa nga jëmale fa julli ñu jublu nga xam ne foofu mooy mooy jublaay jullit ñi. ñu xam daal suñu bëggee orienté waxtaan dëgg-dëgg lii rek mooy waxtaan ñun nag dama ci dama koy baamtuwaat dóor ñu parti politique. doon nañ ci mu ne dañoo am kenn kuy sunu leader déedéet ndax li ma koy wax ñun moomaguñ ndax ñun dañuy sànq dañuy woote dañuy woote léegi nag buñ demee ba ñuy woo muy jullit ñëpp wuy si ñu ñu nasu ci genn buum boobaa nag nag bu ñu demee ba jël ñëpp wuy suñu ñu nosu genn boobu nag bu boobaa jullit ñi nag ñooy xool ñoom ki ñuy jiital ñu jiital ko waaye ñooy xool kañ ñuy àndali ñu ànd ak moom ñooy xool wan taxawaay la ñu loolu kon tey jii ñun ñii ñu bàyyi xel ku ëndib jàpp ne tey ñun dañ ne tey ñooy ñi nga xam ne ñun ñoo ñoo porte combat bi ñun ñoo am ñun ñun ñoo ñun ñoo ñun ñoo ñu organisé affaire bi di xool nañ ko bëgg ko dee ñun organisé guñ dara ñun dañuy sensibiliser di woo ñi ngir ñu ànd ak ñun ci suñu xalaat bi ab xalaat lañ indi xalaat bi nag yéen am ngeen ci xalaat yéen ñi ñëpp tamit am ngeen ci xalaat léegi nag xalaat boobu noonu ñu ngeen ci am xalaat lañ soxla mooy ngeen jox ci seen xalaat waaye tamit ngeen ànd ñun wuy suñu ci lii nii ñu bokk liggéeyandoo ko ndax tey jii képp ko xam ne jógee nga fii ñëw ñëw ànd ak ñun yaa ñun ñooyam même combat bu suba ak jàmm bu suba ak jàmm mën nga mën nañoo ànd ak yow dem sensibiliser benn groupe ndax loolu rek mooy liggéey actuellement nii mooy sensibiliser jullit ñi ñu bennoo fas yéene xàccandoo dóoróonoo waaye ñu gëm ne nag dañoo war a bokk ci doxalin réew mi moom daal li ñu gëmul ñun mooy jàpp nañ ñu gëmuñu gëmuñ na ñu war a toog rek nañu ñun ay jullit lañ kon waruñoo bokk yoo xam ne ñun dañu combat bi ñu attaqué nag ñun ñi ko attaqué nag ñeme nañ te xam nañ ko tamit wax dëgg yàlla te luñ ñu ko mën ko dégg xam nañ nag wóyeeful nag ndax lu mel ni ku yëkkati ci réew mi daan la galgal moo tax na ñun nag yàkkam duñu combat bi dañ ko bëgg togg ba ñor li ci war ñu ko ci ku ci amul yoon ñu la yoon ku ci a jot ñu képp ku ci war a bokk bala ñu yëkkati ñu ñu jox la kaddu ndax nag euh, ñu bari des fois dañuy joxe question ne lan moo tax mun leen dem ci média yi yaatal ko micro déedéet waaye mënaguñ ko ndax ndax mënaguñ ko mooy ñun li ñuy li ñuy woote dañ ko moomagut ndax julli ñi la ñuy woo te julli ñi wuy seegu ñoom ñëpp kon ñun amaguñ droit pour génn manifester fenn ndax suñ ko defee rek kon ña ñu war a woo bu ñu àggee ñoom dañ naan kon dañoo yëgal waaye bonawuñ ci moo tax ñuy fas yéene ñun manifestation wala ñu dem ci benn média nii la def du mu ci dem ci groupe WhatsApp bi waaye tamit bu laajee tamit porte à ñu jóg foofu suñuy dal kër gu ñu war a dem ñu dem fa ñu def ko bu ñu defee noonu ba noppi ni ñu ko ni ma ko waxee bañ nos bañ nos génn bu muy julli ni muy tiyaan xaaj na mu ak ni ma ko waxee sànq bañ am mbooloo moo xam ne fu ñu jógee dañuy gis kilifa tijaan ci biir gis kilifa xaaj biir gis kilifa laayeen ci gis waaye gis kilifa ki abdourahman ak ñëpp tarixee nekk sax ñu biir ñooñu mbooloo moom ñoo fas yéene ànd ñoom tënk li ñuy tënk ñooñ nag ñooy xool ñoom ki ñu bëgg mu jiital ne mu jiital ñooy xool ki ñu ànd la ñu ak moom ñooy xool naka la ñuy def daal ba fexe ba bokk ci doxalin réew mi fexe ba am majorité assemblée nationale waaye fexe ba sax gox réew ñu mën bokk ci élection waaw loolu yëpp ñu ngi ñu ngi koy bàyyi xel baax programme programme rek ak ko fas yéene defee ak ñun ñu xalaatee gun ñu xalaatee gun mooy dañoo bëgg région bu nekk bu caagin ñun ñoo naan diw ak diw moo fa jiitu waaye waa région ba ñooy xool ñoom ñoom ka leen doy nga xam ne diineem doy na leen xam nañ ne kii kat ku am ngor la te ku dul wor la te ku sàmmonte ak diineem ñoo ñu jiital kooko ñoo ñooy ànd liggéey seenu gox nekkul ne benn mbooloo boo xam ne mbooloo bi ñoo jóg ñu nekk seen seenu gox bu information bi jàll ñoo bu ñuy tànn ñoom ñooy tànn kañ bëgg mu taxaw leen ci pencum ndaw réew bu ñu def euh, euh, élection maire sax ñooy xool kañ bëgg mu dafa nekk seen maire ñoo koy xool kon ñun programme lañu lañu fas yéene jël waaye nañ mu leet ñëpp nañu nag ku bëgg ànd ak ñun moom na nga xalaat na nga seetlu ñun ak ak pal tax ñoo jóg ku bëgg ànd ak ñun na nga seetlu ñun woon kenn ci wut ci alal digguñ kenn alal tamit sunu campagne mooy benn yee nit ki ci li nga xam ne war na ca yeewu ci diineem xam ne ab jullit dafa war a mën a bokk ci doxalin réewam xam ne ab jullit buy xeex du xeex ngir njariñu boppam waaye day xeex ngir njariñu adduna bi waaye day xeex ngir ay sëtam ak i sëtaanam waaye day xeex ngir sowee lislaam ci li ñëw ak li ñëwagut ndax jàpp naa ne bu fekkonte ne lislaam tëgguñu woon tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bu fekkonte ne tey jii euh, liggéeyut noonu maanaam nekku loon yonente bi liggéey ni mu liggéey bàyyi fi saxaaba yi ñu jaar ba sunu kilifa yu baax yi ñëw ku mel ne Cheikh Bamba ak ñeneen ñeneen yi ñëw tëggee ne li tëggee noonu ngir waajal ëllëg ndax jàpp naa ne bu ngeen xoolee alxuraan loolu rek la kon a nekk liggéey boo xam ne dañuy jàpp na suñu jaay ñu a yëkkati xam lu ñu dugg dañ cee dugg suñu intérêt bu ñu ci amee tey baax na bu baax na waaye a dugg ñu dugg dañ a dugg duggin ñu nekk di sowe diine waaye dañuy dem xam ne ñu ngi continuer di sowe diine ba tey ndax yaakaar na bu ngeen xoolee ñu baax ñi ni ñu fi defoon tey ñoom dem nañ waaye ñu ngi sooy ba tey kon ñun lan moo tax ñu jàpp noonu lu ñu war a yëngatu rek ñu war a xalaat ne dañu war a am njëriñam tey déedéet ñun lu dugg bu ñu xalaat a am nañu xalaat ne ñun waruñu cee am benn njëriñ waaye ëllëg nag suñuy sët ak suñuy sëtaat ñoom nañ cee jariñu ba tiyaaba jot ñun fu ñuy fekk ñu xam ne ña nga tëdd suñu bàmmeel waaye leer nañu kat jëmmatoon nañ ci adduna loo xam te loola ma ngay sooy diina ba tey te rek mooy sens bi ndax dund ñun ñëpp xam ne dund gu dund gu yàggut dund nekk te boo nekkul ci sonn ci lii yaa ngi sonn na sonn ndax man mi di wax yéen fi ne fii may waxee nii ci ab tënku-tënk laa jógee boo xam ne damaa tënkoon lool bu ñu demee ñu nosu genn boobu nag boo boobaa julli xool ñoom ki ñuy jiital ñu jiital ko waaye ñooy xool kañ ñuy àndali ñu ànd ak moom ñooy xool wan taxawaay la ñu am loolu kon tey jii ñun ñii ñu bàyyi xel ku andi question jàpp ña tey ñun dañ ne tey ñooy ñii xam ne ñun ñoo ñoo porte compa bi ñun ñoo am ñun ñun ñoo ñun ñoo ñun ñoo ñu organisation bi di xool nañ ko bëgg def ko dee ñun organisé guñ dara ñun dañuy sensibiliser di woo julli ñi ngir ñu ànd ak ñun ci suñu xalaat bi ab xalaat lañ indi xalaat bi nag yéen am ngeen ci xalaat yéen ñi ñëpp tamit am ngeen ci xalaat léegi xalaat boobu noonu ñu ngeen ci am lañ soxla mooy ngeen jox ci seen xalaat waaye tamit ngeen ànd ñun wuy suñu ci lii nii ñu bokk liggéeyandoo ndax tey jii képp ko xam ne jógee nga fii ñëw ñëw ànd ak ñun yaa ñun ñooyam même combat bu subaak jàmm bu subaak jàmm mën nga mën nañoo ànd ak yow dem sensibiliser benn groupe ndax loolu rek mooy liggéey actuellement nii mooy sensibiliser jullit ñi ñu bennoo fas yéene xàccandoo dóorandoo waaye ñu gëm ne nag dañoo war a bokk ci doxalin réew mi moom daal li ñu gëmul ñun mooy jàpp ñu gëmuñu gëmuñ ne ñun dañoo war a toog rek ne ñun ay jullit lañ kon waruñoo bokk ci nañu xam ñu ko attaqué nag ñi mën nañ ko te xam nañ ko tamit wax dëgg yàlla te luñ ñu fekk tamit mën ko mën ko mën xam nañ nag wóyeeful nag ndax lu mel ni ku yëkkati ci réew mi daan la galgal moo tax na ñun nag yàkkam duñu combat bi tamit aussi dañ ko bëgg togg ba mu ñor li ci war ñu def ko ci ku ci amul yoon ñu am la ci yoon ku ci war a jot ñu jot la ci képp ku ci war a bokk bala ñu yëkkati genn kaddu ñu jox la kàddu ndax nag euh, ñu bari defa dañuy joxe question ne lan moo tax mun leen dem ci média yi yaatal ko mi ko def déedéet waaye mënaguñ ko ndax ndax mënaguñ ko mooy ñun li ñuy li ñuy woote dañ ko moomagut ndax julli ñi la ñuy woo te julli ñi wuy seegu ñoom ñëpp kon ñun amaguñ droit pour génn manifester fenn ndax suñ ko defee rek kon ña ñuy war a woo bu ñu àggee ñoom dañ naan kon dañoo yëgal waaye boolewuñ ci moo tax ñu fas yéene ñun bala ñoo def benn manifestation wala ñu dem ci benn média nii la ñuy def du mu ci dem ci groupe whatsapp yi waaye itam bu laajee itam porte à porte ñu jóg force suñu ko ñu defee noonu ba noppi ni ko ni ko waxee bañ nos bañ nos génn bu muy julli ni muy tiyaan xaaj na mu ak ni ma ko waxee sànq bañ am mbooloo moo xam ne fu ñu jógee dañuy gis kilifa tiyaante biir gis kilifa xaajate biir gis kilifa laayante biir gis kilifa murit biir waaye gis kilifa képp Abdurahmaan ak ñëpp tarixee ñu gis kilifa ci mbooloo moom ñoo fas yéene ànd ñoom tënk li tënk ñooñu nag ñooy xool ñoom ki ñu bëgg mu jiite leen mu jiite leen ñooy xool ki ñu ànd leen ñu ànd ak moom ñooy xool naka la ñuy def daal ba fexe ba bokk ci doxalin réew mi fexe ba am majorité assemblée nationale waaye fexe ba sax gox goxaat yi ci réew mi ñu mën cee bokk ci élection yi waaw loolu lépp ñu ñu ngi koy ni ko fas yéene def ak ñun ñu xalaatee gun ñu xalaatee gun mooy dañoo bëgg région bu nekk lu caagin ñun ñoo naan diw ak diw moo fa jiitu waaye waa région ba ñooy xool ñoom ñoom leen doy xam ne diineem doy na leen xam nañ ne kii kat ku la te ku dul wor la te ku sàmmonte ak diineem ñooñ ñu jiital kooko ñooñ ñooy ànd liggéey seenu gox nekkul ne benn mbooloo boo xam ne mbooloo bi ñoo jóg ñoom rek wër Sénégal di liggéey gox yi mais dén mais ñenn ñu nekk seen seenu gox bu information bi jàll ba ñenn ñoo ñooy liggéey seen gox bu ñuy tànn ñoom ñooy tànn kañ bëgg mu taxaw lañ ci penc ndaw réew mi bu ñu def euh, élection maire sax ñooy xool kañ bëgg mu def nekk seen maire ñoo koy xool kon ñun programme lañu lañu fas yéene jël waaye nañ mu leet ñëpp nañu nag ku bëgg ànd ak ñun moom na nga xalaat na nga seetlu ñun ak ak pal tax ñoo jóg ku bëgg ànd ak ñun na nga seetlu ñun wóowoon kenn ci wut ci alal diguñ kenn alal tamit sunu campagne mooy benn yée nit ki ci li nga xam ne war na ca yeewu ci diinam xam ne ab jullit dafa war a mën a bokk ci doxalin réewam xam ne ab jullit buy xeex du xeex ngir njariñu boppam waaye day xeex ngir njariñu adduna bi waaye day xeex ay sëtam ak i sëtaanam waaye day xeex ngir sowee lislaam ci li ñëw ak li ñëwagut ndax jàpp naa ne bu fekkonte ne lislaam tëgguñu ko woon tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bu fekkonte ne tey jii euh, liggéeyutoon noonu maanaam nekkuloon yonante bi liggéey ni mu liggéey bàyyi fi saxaaba yi ñu jaar fi ñu jaar ba sunu kilifa yu baax yi ñëw ku mel ne yi ñëw tëggee ne li noonu ngir waajal ëllëg ndax jàpp naa ne bu yi waxu ñooñ ñooñ tey ñuñ jamonoonteel waaye dañuy wax ba ñooñ ëllëg ñi kon ñun suñu liggéey wurta nekk liggéey boo xam ne dañuy jàpp ne suñu jaay ñu bopp tey moo ñu war a yëkkati xam lu ñu dugg dañ cee dugg suñu intérêt bu ñu ci amee tey baax na bu ci amee baax na waaye dañ cee war a dugg loo xam ne lu ñu dugg dañ cee war a dugg duggin woo xam ne dañuy xalaat a mën fi ñu nekk di sowe diine waaye dañuy dem xam ne ñu ngi continuer di sowe diine ba tey ndax yaakaar na bu ngeen xoolee ñu baax ñi ni ñu fi defoon tey ñoom dem nañ waaye ñu ngi sowe diine ba tey kon ñun lan moo tax ñu jàpp noonu lu ñu ñun adduna bi tey lu ñu war a yëngutu rek dañu war a xalaat ne dañu war am njëriñam tey déedéet ñun lu ñuy dugg bu ñu xalaat ne war nañ cee mën a am njëriñ tey nañu xalaat ne ñun waruñu cee mën am benn njëriñ waaye ëllëg nag suñuy sët ak suñuy sëtaan ñoom lañ cee jariñu ba tiyaaba joon ñun fu ñuy ñu xam ne ña nga tëdd suñu kenn ku ne xam ne wér amatu fi te nit ki li muy dund wax yéen fi ne fii may waxee nii ci ab tënku tënk laa jógee boo xam ne damaa tënkoon lool ab tënku-tënku met laa jógoon boo xam ne maa tënkoon lool te adduna rek moo ma tënkoon ngir liggéey bi mooy liggéey muy adduna moo ma tënkoon doonte maa yéene jàmm yàlla waaye adduna moo ma tënkoon kon nag ñu xam ne même boo yëngu ci yu mel nii tamit adduna dañ la tënk kon ne fexeel ci yu mel nii mu tënk la ngir nga jaamoo ko sa borom ndax loolu rek dañ jàpp ne moo fi nekk waaw kon ñoo ngi xam ne guddal waaye ñu xam ne daal kàddu yi kon lii la dañ leen di woo ci woote bi ñuy woote muy benn julli ni ngir bokk ci doxalin mi loolu nag bu ñu wax faaw ñu ne politique waaye nañ jàpp yoonu politiciens ya tur bi moom mënuñu mënuñu koo ñàkk ndax dañ ne politique te politique ne doonu la aay ndax nit ki yow nga gëm leen na fexe ko gëm loola loola mooy politique. tey jii kii def julli nga fexe koo campagne ngir am ko mën a dugg ci lislaam loolu mooy politique kon loolu mooy politique kon loolu bonut waaye doxalinu bon nag ñun wax lañu wax doxalinu bi bi ñu xamee politique nga xam ne jàpp nañ ne kuñ ne politique turu Sénégal kuñ ne buñ tuddee turu politique Sénégal kuñ ko wax rek nga daw ndax xalaat ne warkat kooku warkat lay doon kooku fenkat lay doon kooku kuy lekk di yàb kuy yàb bi di lekkaat lay doon ñun kon ñu xam nañu du ñu mbooloo moom loolu taxuñoo jóg ak pal tamit taxuñoo jóg alal taxuñoo jóg tamit diguñ kenn alal tamit waaye tamit yàq alal feneen lu dul jàpp nañu ñun li ñu fas yéene mooy suñu doxeen lu sell lañ ko bëgg def xam a liggéey la ñuy liggéey xam foofu rek ndax bi ni ma ko waxee sànq ni ma ko ta waxee ay borom xam-xam rek ñoom lañ fekk ci biir te ñu àndal tamit ñu topp suñu ginnaaw tamit wala ñu andi seen kàddu ñooñu sut ci xam-xam ñun dañuy ay ñu néew xam-xam yoo yoon topp ci waaye nag yéene la ñuy doxee ak ndimbalu suñu borom ndax suñu yëkkati suñu kàddu rek wax dëgg yàlla jàpp nañ te yëkkati ngir yàlla rek xëy na yàlla mën nañoo jubal suñu a dégg donte du ànd ak xam-xam waaye la cay génne di baax suñu borom te xam ne tamit ñi ñu yónni muy alañ baat wala xidma seen i ñoom it seen i kàddu dafa doon kàddu yàlla barkeel nga xam ne kuñ ci jox wax soo la mën nga wax loo xam ne xay na dana ñi dana ko mën a dégg waaye lu ci jubul daal ngeen xam ne ci man mu ñàkk solo mi la waaye du du waa alañ baat wala xidma waaye juttu ngeen xam ne kon waa ah, sunu sunu borom tabaraka taala moom la waaye tamit ñi ñu yónnee woon seen i kàddu moo mate noonu leen jaajëfal jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw jërëjëf eh, ñu ngi ziar baax waa daara ji di jaajëfal sëñ Abdou ci kàddu yu am solo yu rafet yooyu kon xam naa sëñ Salih mën ngaa tàbbi jotaay bi di ziar ñëpp jërë ngeen jëf. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi nemmeeku mbokk yi yëpp. wa attaawunu fi diin euh, di nemmeeku bu baax a baax sunu jëwriñ yi nu fekk ci bunt bi sunu naataango yi di rafetlu waxtaan yi fi yi nu fu doore sëriñ Abdul Jalil li mu ubbee nekk lu am ama am solo nekk lees lees war a bàyyi xel bu baax a baax waaye kippaango gi xam naa ni daal daal di wuy turam ndegam das ko tudde taawunu fi diin dimbalante ci diine waaw kuy dimbalante ci diine nag kon la ci ëpp solo ci dimbalante ga mooy pas-pas ndax nit ki ngir nga man koo dimbali ci muccal ko tey ak ëllëg danga koy defu jullit muy aji gëm ba noppi su boobaa nag nga di ko teete ci jaamu yàlla yi ba pare di ko fangal lépp lu ko yàqal ci loolu nag ci la waa al ibaadatu wal xidma am xalaat bu rafet fas yéene ko taxawal nun nag ñu bëgg a sof ci wax yi nga xam ni dafa am solo lool te sëñ Abdul Jalil indi ko muy yokkaleeral benn mbir walla ñu ni ko jañse menn mbir ci diggante li ñu tuddee diine ak doxalinu réew wala liggéeyal yàlla wala liggéeyal diine wala sàmm suñuy jikko ak suñuy aar ak suñuy moomeel ak ñépp nun ko mën a tudde te fii ci Sénégal ñu gën koo miine ci baatu politique comme ni ko sëñ Abdul Jalil waxe nag moom politique moomu daa nekk loo xam ni mbooleem liy dox ci àdduna amul lenn luy dox ci àdduna lu ay mbooloo seq siq ay fere ay mboolaay ay population lu may ne bay dox ci yoonu politique moomu nun ñëpp xamal nañ ni saxaaba yi ñoonu gën a sell ñoonu gën a màgg nun ndax ñoom lislaam am na fum leen teg te ñépp xam ni Seydina Umar njëkk muy génn àdduna am li ñuy wax rijalu shura muy góor ñi nga xam ni ñam waxan ni ñii nii nañu diisoo ci seen biir fal ci kenn kon kooku ci diine lay wax waaye jox nañu benn exemple ci li ñu tuddee la démocratie kon benn ngoog ñépp xam itam ni lislaam li ñu tuddee gouvernance moo ci njëkk a dox ndax xam na ni fépp ci gox yi lislaam dafa daan am ab gouverneur gouverneur Damas gouverneur u euh, nuñ koy tuddee ci Basra gouverneur nàngam xam na ni itam dafa noswaan nosu gu am solo impôt nit ñi dañ ko daan joxe kon loolu kenn mënul ni du politique léegi itam li nga xam ne ni mu ko waxee ni baatu wolof bi ñuy tuddee daara ñu bari dañ cee naxu maanaam dañ cee woru ci xamunu ba léegi baat bi lu muy tekki ndax dañ koy jàppe rek benn tur walla ñu askane la ko lenn te daara moom ci wolof ci ak gànjaroom mooy tekki fépp foo xam ne dañ fay jàngi bañ nañ ko sax ba mbokk yi buñ defee seen kuréel wala seenub daayira lu ci bari duñ ko wax sax daayira waaye daara lañ koy wax ndax li mu nekk bérébu xam-xam bérébu rootukaay léegi nag kon politique yooyu diine moomu nag jàngat bu sofaanu biñ ci am ñu war caa jóge am ci jàngat bu gën a am maanaa te mooy teg ko fa ko ñu baax ña tegoon ndax ñoom dañ naan fekk lu nar a yàqu ñu defar ko kon bu nu seetloo Euh, ak fi nga xam ni àdduna jaar na fa fi diine yi jaar ak li ñu tuddee doxalinu réew dañuy xam ni kon ndeket yoo doxalinu réew mënula ñàkk ci diine waaye ñu ni diine mënula ñàkk ci doxalinu réew ndax li tax mënu cee ñàkk muy nit ki kéew mi mu nekk fi la mën a jaamu yàlla te kéew ma nga nekk bu nu fa teree jaamu yàlla dafa mel ni jaamu yàlla dootu sotti ndax bu nu xoolee jullit ñi ca makka ba nu fay door di nekk ci ndorteel diine am na lu daan jànkonteel ci ay jafe-jafe ba loolu xañoon leen ñu mën a jaamu yàlla ca béréb ban nekk ba nu ko mënatul nag am na lu ca topp te mooy génn béréb ba dem ci meneen réew wala ñu ne beneen béréb beneen barab foofu moo tudd Madinatul Munawwara ba nu fa demee xam na ni kon kéew ma na mu leen teeroo muy lanu laaj la mu laaj lanu soxla ci jaamu yàlla kéew ma da leen koo bàyyeel lanu soxla ci mën a gëm seen pas-pas kéew ma influencé wu leen ci ni leen doo leen ko fi defe wala mu leen ko yàqal waaye kéew mi ci boppam moo leen njëkk ak accueillir moo leen njëkk dalal ngir ñu mën a jaamu sunu borom yàlla daan ni Euh, euh, bokk gaa yi wax ni ko ah, ñun day fanu nekkan ca alxuraan fa ca nettalay alxuraan dañu doon xatal dinu bund xatal mu ni xanaa suufu si yàlla si nekkul woon lu yaatu alam yakun ardullahi aw alam takun ardullahi waasiatan fa tuhaajiru ilayha ca maanaam laaye ja xanaa suufu si yàlla si yaatuwul woon ngeen gàddaay waaw kay kon léegi nun am na ñaar moo ngi xaar mooy sunu réew mi mooy suuf sunu dëkk te fi la ñuy jaamoo yàlla fi la ñuy mën a dund itam limanisme muy nite man fee war fee mën a dund itam ci ak dal aku féex ak ci jàmm léegi nag saa boo xam ne nag bàyyi nan ba ñi nga xam ñoo yéefar yi dem nan ba yore nan atte bi yéefar yi nag bu ko waxee maa ngi ci jublu rek képp koo xam ne yaa ngi dox doxaliinu yéefar ndax am na ñoo xam ne yàlla ci boppam mooy seede ngëm waaye am na ñoo xam ne jullit ñëpp ak jullit lañ leen di seedeel te àtteb jullit lañ leen di jox waaye yàlla àtte bi la leen jox ndax bu alxuraan ne waman lam yaxkum bi ma anzala llaahu fa ulaayika faasiqun am na ca kaafirun am na ca kon ñooñu am na fu mu leen féetale léegi nag ñun ñu daan ne waaw sunu bopp daal sunu diine yi daal garaawut ñun daal sunu diine yi ci julli woor rek la yam li ci des moom jëru ko léegi nag daan yëfar yi wala kàccoor yi naafiq yi def leen lu ne neex xool leen lu neex ngeen def ñoom ñu daal jékki-jékki dem ba mu neex leen ñu ni kenn dootu fi am ñaari soxna dem ba neex leen ñu ni léegi kenn dootu fi samp daara naa da ngay jàng alxuraan ku fi amati sa doom mu neex la mu naqari la nasaraan lañ koy jàngal nga ni ah lii moom mbir maa mu ngay bëgg ëpp loxo de nga daan ni waaye alxuraan de nee na woon bu fekkente nii da ngeen a dem ba mënatu leen a jaamu yàlla na ngeen génn fi ngeen nekk ngeen gàddaay dem ñu ne la ah gàddaay de manoon naa am ci ay jamono ndax booba suuf si amut fii la samam réew yam ak fii la tàmbale booba bu la neexee nga nekk fii ba mu yàgg mënatoo fee nekk nga jóge fi dem Mali wala nga dem Wurusogi wala nga déggal mën naa Wurusogi sax nga dem Mauritanie wala nga dem Amérique wala nangam nangam te dara du daj fekk waaw nga kon mënatuma fee jaamu yàlla ndax sag doom say njaboot boo demee ba sañatoo leen a jàngal alxuraan sañatoo yow sa julli say diine nga sañ ko def kon booba yow léegi xat nga léegi nga ni kon li ci des mooy ma génn nga génn ñooñu ne la ah yow de la ngay daw foofu moo ne fii fii de lii nga la ngay daw fële moom ngay def fii mbaa boo ko mën nàngam nangam nangam wala sax ñuy la déet yow fii du sa nationalité génnal sam réew dañ laa dàq delluwaatal sam réew nga xam ni kon balaa loolu lépp nag bi ci am nun ci poppam ñu taxawal suñu bopp fexe bala la ñuy ragal ba mu ba tax alxuraan di war a mën a tuxuloo ak gàddaayloo ñu bañ fa àgg. kon nag mbokk yi balaa ñu àgg fii li wolof di wax daw ca ba ngay ami tànk kon nanu xam ni nun li xew ci réew mi dañ ko war a xam ànd ci doxalinu réew mi moo ne may sunu réew mii sunu kippaangu gi ñu mën fee toog jaamu yàlla ni mu waree démb ñoo ngi voté ca assemblée nationale. Euh, li ñu tuddee code électoral fi mu toll nii ba léegi ñu ëpp ci mboolaay gi xamuñu sax luy code électo électoral ñi ca assemblée nationale ba sax bari na fa ñoo xam ni dañuy dégg tur bi dong lañ ci am ñun yëkkati leen ñu yëkkati ñoo ñooñu xamuñu liiruñu sax lañ leen di woteeloo woteeloo muy lañ leen di wéttuloo ndax baax na ci réew mi baaxul ci réew mi amal na réew mi njariñ ak amul réew mi njariñ ak def na léegi deful li xamuñu ca dara faf kon mbir mi dafa jaraat am réew bu fekkee ne da nga faa nekk te mënoo faa génn buy tàkk yow dangay ca biir safar sa ngay dee buy sedd itam ca ndox maa sedd galaas gaa rey buy buy buy walangaan itam ndox ca ndox ma ngay lab su boobaa da ngay fexe ba mboolem lu fi indi mboolem musiba yooyu bum bum ca am te bokk na ci nag musiba mi gën a rëy mooy ñu dem ba yow jaamu yàlla gi nga xam ni moo tax yàlla bind la ba ba mu naa wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ñu ne la léegi sañatoo ko def nit nag boo demee ba yi la yàlla mayan mu nekk yu daggan ci yow ñuy la sañatoo cee laal dara ba pare nag ñi nga xam ni moom la yàlla araamalan ci yow nga xam ni yow bëggoo ko gis wuru sax a am cim réew ñuy la léegi lii nii boo ko xoolee sa xool bu leen neexut bu la yóbboo ci yoon fa ngay des te bokk na ci muy borom ñaari tur bari na ci réew yi boo xeexee bis boo waxee ba gis borom ñaari tur boo wax ko dara wala nga xeex ak moom wala nga am moom jafe bu la yóbboo ci yoon yow fa ngay des nga xam ni moom ci boppam moo lay ëpp ay àq ak yelleef yow mi dëkk ci réew mi juddoo ci sa téeméeri maam ku leen di wàññi kenn du leen mën a génne ci réew mi moom mu ñëw ni la léegi man maa ngi nii nekk góor sol ab ab ay yëre jigéenam sol ay nangam nangam di wax waxi jigéen nga xam ne yow lii lislaam bëgg ko diine bëgg ko baaxut ci génération bi nga am sa doom mu jékki-jékki ni moom borom ñaari tur la bëgg a nekk dem daal jox aw turam ca liste ba ñu bind ko mu signé ni moom borom ñaari tur la jeex na nga daan ni waaw lii moom mbaa jàmm ba ma gisate la ci béréb sàngam mu daal dem ni sama baay daf ma ni lii ak lii ñu ñëw jël si la loolu nag maanaam boo koy wax koo xam ni xëy na xamagul fi àdduna toll ci ak caay-caay ak li nga xam ne ñi ni tuddi jaami saytaane yi fi leen toll ci liggéeyal saytaane loolu dana la jaaxal kon nag waa al wal xidma bu ay nit taxawee ni ñoom dañuy jaamu saytaane saytaane leen bëgg liggéeyal banaa ñoom ba am ci ñoom sax ku naan li mu am ci alal lépp daa bëgg balaa dee lépp mu liggéeyale ko seytaane ay nit jóge fii di ay jullit di ay nit am na sax ñoo xam ne duñ ay jullit waaye ay nit lan ay chrétien lan wala ñu mu di nekk waaye nit yi yitteel leen ñoom ñi ñëw ni danoo bëgg a liggéeyal yàlla kon defe naa ñooñu ku leen jàppalewut doo leen yett kon li fi am solo mooy képp koo xam ne da ngay la ñor wala dund sa dund gii moo la ñor kon defe naa doxin wi seen doxin wi nii laa nekk loo war a gërëm te itam kenn wuru la caa jiitu ndax diine ji moom bu yàqul nun ñëpp la yàqul ndax la nuy xaarangu nuy xaar ñaari kër la àjjana safara yéefar yi nag naagu nan seen bopp ci aljanna ñi nga xam ne ñoom naafiq itam innal munafiqina fi darakil asfali minan naar kon nañ ñi ci des mooy jullit ñi ñoom ñooy taaba taaba suñu bàyyi seen bopp la fi xusrin illa allazina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr tawaasi bil xaq nag muy dénkante ci ak dëgg ak um maanute kon ci la waa al ibaadatu wal ma di dox di ci woo mboolem ku jullit comme ni ko sëñ Abdul Jalil waxee nag amuñu xeej ak seen képp koo xam ne niti da laa ñor képp ku yàlla ñor képp koo xam ne bëgg nga dund sa diine fii ci Sénégal ci ni mu maandutee ci dox ko dund ko ci maanu ci maandute kon noo ngi lay tàllal sunu loxo ci ñu ànd liggéeyal yàlla ci maandute liggéeyal diine yi ñu baax ñi nu fi doon woo di soxla seen kii ñëpp a ngi dégg fii ci internet bi saa su ne ñu leen fii xasaka saaga ak a wax lu jaadul muy naqari sunu xol yi waaye duñ ca man dara sunu aman njiitu réew loo xam ni sunu yi kilifa yooyu ñor na leen waaye sunu aman ci assemblée ñoo xam ni sunu loolu ñor na leen suñ fa jàllalee benn projet de loi ni leen ñun kat ñoo gis ñoo xam day jëf nangam nangam ci sunu diine ci sunu nangam sunu nangam lii su boobaa ñoom xam nañ ko dañ koy daal di ndax diine da leen di teel suñu gisee ku cay def lu yàqu ñu dun la far waaye suñu gisee ku jóg di ca defar ñu daal di cay ànd waaye ma bëgg ñu dem fa ni dañuy bëgg a voté benn as benn kii boo xam ni dañ ci may lii diine wala criminaliser homosexualité rek ñëpp gis li fi xew projet de loi bi gars yi ñoo ngi bëgg njiitu réew lancé ko wala ñi nga xam ñoo ngànk loolu kenn faalewuleen kon mbir mi yeewu jot na. kon nag mbokk yi balaa ñu àgg fii li wolof di wax daw ca ba ngay ami tànk kon nanu xam ni. nun li xew ci réew mi dañ ko war a xam ànd ci doxalinu réew mi moo ne may sunu réew mii sunu kippaangu gi ñu mën fee toog jaamu yàlla ni mu ware démb ñoo ngi voté ca assemblée nationale euh, li ñu tuddee code électoral fi ñu tul nii ba léegi ñu ëpp ci mboolaay gi xamuñu sax luy code électo électoral ñi ca assemblée nationale ba sax bari na fa ñoo xam ni dañuy dégg tur bi doo nga leen ci am ñun yëkkati leen ñu yëkkati ñooñe liiru liiruñu sax lan leen di woteeloo woteeloo muy lañ leen di wéttuloo ndax baax na ci réew mi ak baaxul ci réew mi amal na réew mi njariñ ak amul réew mi njariñ ak def na léegi deful li xamuñu ca dara faf kon mbir mi dafa jaraat am réew bu fekkee ne da nga faa nekk te mënoo faa génn buy tàkk yow dangay ngay ca biir safar sa ngay dee buy sedd itam ca ndox maa sedd galaas gaa lay rey buy buy buy wallangaan itam ndox ca ndox ma ngay lab su boobaa na ngay fexe ba mboolem lu fi indi mboolem musiba yooyu bum bum ca am te bokk na ci nag musiba mi gën a rëy mooy ñu dem ba yow jaamu yàlla gi nga xam ni moo tax yàlla bind la ba ba mu naa wama xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ñu ne la léegi sañatoo ko def nit nag boo demee ba yi la yàlla mayan mu nekk yu dagan ci yow ñuy la sañatoo cee laal dara ba pare nag ñi nga xam ni moom la yàlla araamalan ci yow nga xam ni yow bëggoo ko gis wuru sax a am cim réew ñuy la léegi lii nii boo ko xoolee sa xool bu leen neexut bu la yóbboo ci yoon fa ngay des te bokk na ci muy borom ñaari tur bari na ci réew yi boo xeexee bis boo waxee ba gis borom ñaari tur boo wax ko dara wala nga xeex ak moom wala nga am ak moom jafe-jafe bu la yóbboo ci yoon yow fa ngay des nga xam ni moom ci boppam moo lay ëpp ay àq ak yow mi dëkk ci réew mi juddoo ci sa téeméeri maam ku leen di wàññi kenn du leen mën a génne ci réew moom mu ñëw ni la léegi man maa ngi nii nekk góor sol ab ab ay yëre jigéenam sol ay nangam nangam di wax waxi jigéen. nga xam ne yow lii lislaam bëgg ko diine bëgg ko baaxut ci génération bi nga am sa doom mu jékki-jékki ni moom boroom ñaari tour la bëgg a nekk dem daal jox aw turam jël liste ba ñu bind ko mu signé ni moom borom ñaari tur la jeex na nga daal ni waaw lii moom mbaa jàmm ba ma gisate la ci béréb sàngam mu daal dem ni sama baay daf ma niw lii ak lii ñu ñëw jël si la loolu nag maanaam boo koy wax koo xam ni xëy na xamagut fi àdduna toll ci ak caay-caay ak li nga xam ne ñu ñu tuddi jaami saytaane yi fi leen toll ci liggéeyal seytaane loolu dana la jaaxal kon nag waa al ibadatu wal xidma ay nit taxawee ni ñoom dañuy jaamu saytaane saytaane leen bëgg liggéeyal banaa ñoom ba am ci ñoom sax ku naan li mu am ci alal lépp daa bëgg balaa dee lépp mu liggéeyale ko saytaane ay nit jóge fii di ay jullit di ay nit am na sax ñoo xam ne duñ ay julli waaye ay nit lan ay chrétien lan wala lu mu di nekk waaye nit yi yitteel leen ñoom ñu ñëw ni danoo bëgg liggéeyal yàlla kon defe naa ñooñu ku leen jàppalewut doo leen yett kon li fi am solo mooy képp koo xam ne dangay ngay diine la ñor wala dund sa dund gi moo la ñor kon defe naa doxin wi seen doxin wi nii laa nekk loo war a gërëm te itam kenn waru la caa jiitu ndax diine ji moom bu yàqul ñun ñëpp la yàqul ndax la nuy xaarango nuy xaar ñaari kër la àjjana ak safara yéefar nag naagu nan seen bopp ci aljan na ñi nga xam ni ñoom naafiq itam innal munafiqina fi darakil asfali minan naar kon nag ñi ci des mooy jullit ñi ñoom ñooy taaba taaba suñu bàyyi seen bopp la fi xusrin illa allazina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil xaq ak tawaasaw nag muy dénkante ci ak dëgg ak maanute kon ci la waa al ibaadatu wal xidma di dox di ci woo mboolem ku jullit comme ni ko sëñ Abdul Jalil waxee nag amunu xeej ak seen képp koo xam ne niti da laa ñor képp ku yàlla ñor képp koo xam ne bëgg ngaa dund sa diine fii ci senegal ci ni mu maandutee ci dox ko dund ko ci maandu ci maandute kon noo ngi lay tàllal sunu loxo ci ñu ànd liggéeyal yàlla ci maanute liggéeyal diine yi ñu baax ñu nu fi doon woo di soxla seen kii ñëpp a ngi dégg fii ci internet bi saa su ne ñu leen fii xasaka saaga ak wax lu jaadul muy naqari sunu xol yi waaye duñ ca dara sunu aman njiitu réew loo xam ni sunu yi kilifa yooyu ñor na leen waaye sunu aman ci assemblée ñoo xam ni sunu loolu ñor na leen suñ fa jàllalee benn projet de loi ni leen ñun kat ñoo ngi gis ñoo xam dañuy jëf nangam nangam ci sunu diine ci nangam sunu nangam lii su boobaa ñoom xam nañ ko dañ koy daal di voté ndax diine da leen di yitteel suñu gisee ku cay def lu yàqu ñu duñ la far waaye suñu gisee ku jóg di ca defar ñu daal di cay ànd waaye ma bëgg ñu dem fa ni dañuy bëgg a voté benn as benn kii boo xam ni dañ ci may lii diine wala criminaliser homosexualité rek ñëpp a gis li fi xew projet de luwaa bi gars yi ñoo ngi bëgg njiitu réew lancé ko wala ñi nga xam ñoo ŋànk loolu kenn faalewu kon mbir mi yeewu jot na. xam naa dañ yem foofu rek suñu wax yi xaw naa jaxasoo tuuti ngir wéréb yi nii xaw a tàbbi ci biir waaw ak euh, kii bi nu euh, kéew mi nu wër waaye li nu nam ma wax moom lenn rek la mooy wax yi nga xam ni. xam naa suñu naataango yi bu ñëwee daañ gën a yaatal gën a leeral li nu nam a wax waaw te mooy ñu ànd liggéeyal yàlla te xam ni politique du ni nu ko gisee euh, maanaam li nu namm nun mooy li nit ñi defan seen bopp yi te mooy baatu politique saa bu ko waxee moom mooy boo dee jullit boo ko déggee da ngaa war a daw ñu xamal leen ni leen déedéet baat bi nan ko sànni fële ñun xam ni am yorum réew ab yi ci gën a yaay lépp lu baax nun jullit ñoo ko war taxawee su boobaa buñ demee ba njiitu réew euh, li ñu tuddee assemblée nationale ñi ñu tuddee euh, armée bi di warmaal sunu diine yi bu nu joxut itam lan yellool du nu yàqal sunu benn aada du nu yàqal sunu benn diine su boobaa kon réew mi daan nay baax waaw kon daal loolu mooy maanute kon ñoo ngi leen nemmeeku di leen ziar asaaleh moo doon yëkkati kàddu. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah waa jërëjëf sëñ Saabe kàddu yi am na solo lool te gànjoro lool te matale. man lool lool wax dëgg yàlla ci ni nga ko tënkee ba maanaam ku la déglu daal ci am dégg-dégg dana xam baax a baax fi ngay waxee kon sëñ Mbaye Diagne imaam ñu ngi lay xaar ci biir jotaay bi jërë ngeen jëf aouzu billahi maa ngi leen di nuyu te li leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax ci dalal bi ngeen ñu dalal ëtt bu yaatu bu yanj bi di ndokkeel sunu kilifa gi nga xam ne muy Serigne Saliou Fall wala fay sax Serigne Saliou mi nga xam ne moo génn léegi ak Serigne Abdoul Jalil ci xitaab bu am solo bi nga ne moom it ko ci mbirum liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la waa alxibaara wal xidma porté ba bàyyi ko xel mu mel ne groupe bu ñu jaar rek groupe boobee daanaka dégg rek am déggiinu wala gis-gisu bi nga xam ne moom la waa Al-Hibaada wal am ñoom di ko waxtaane ci yeneen groupe ba atta sax ñu mën cee jëlaat ay nit dugal leen ci ñi nga xam ne ñooy ànd ci mbooloo mi di ko tasaare mu mel ne xam naa fi ñuy waxee rek ñun mooy maanaam sunu kilifa yi diine yi suñu kilifay diine yi ñi nga xam ne ñu leen leen beddee ci mbirum politique nga xam ne dañ dañoo xamal nañu yéen moom jàkka ja daara ja derba kurus ga euh, lu aju ci mbirum luy luy jagal réew mi loolu mu seen yu nekk te bu nu xoolee cosaanul ziyaasa mooy xusnu siyaasa rafetoon rafetal aw doxalin nga xam ne loolu mooy cosaan yi Euh, loolu duntoon noonu ndax ñi fi njëkk a yilif euh, àdduna ci lu mel noonu ci diggante diine ak politique boobu may wax mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko alxuraan wasalaam mooy ki xam ne moom lañ leen jàppaloo moom lañ leen royloo moom leen toppaloo xeeñculoo leen ay ay mbooram te moom kenn ku ne xam na ne moo daan jiite ca jàkk ja moo daan jiite ca geer euh, kon kooku day mel ne képp ku jaar fi mu jaar rek wala képp ku ku am dara loo doon ci moom rek loolu mooy li nga xam ne moom nga war a opté wala moom nga war a war a def su ko defee nag ñu gis ne bu njëkk euh, sunu jàkk yi moo doon noon mm, jumaa yi nga xam ne fi la ñuy attee peut si si moo université yi kon nga xam ne ñoom kilifa yooyu ñoo daan att diine waaye ñoo daan atte maanaam jëmmi dund gi it bu ko defee kon loolu euh, ñu war ko bàyyi xel war cee gën a it euh, joyal suñuy xel mu mel ne loolu nag dan noo wax na ñu bokku leen ci ñu wax ni kon bokkuñu ci euh, te ni ma ko daan waxee bis bu nga xam ne jamono ju nekk soo kilifa ak gi jógee bëgg dugg ci politique bëgg cee wax wala mu bëgg cee def day mel ne dañ koy dañ koy diaboliser boole ko aw askan wi askan wi dal ci kawam xamal ne ko yow kat ku sell nga ko baax nga yow waroo dugg ci yu mel ni euh, su ko defee moom it mu daal di daw génn euh, boo xoolee benn bennaat yi nga xam ne ñoom sax ñoo ciy rëcc ba jël seeni xalaat ak donte xëy na fondateur lii nga xam ne moom lañ bëgg a def sax ñoom dana dana des ci côté Euh, nga xam ne ñoom dañu jóg rek pour bëgg a bëgg a jiitee bëgg a yilif euh, day mujj rek dañ ciy am mbett mu rëy rëy rëy rëy muy dañ ciy am jël bu rëy boo xoolee sunu kilifa yi nga xam ne rawatina ci sunu yoon wi ci bari dañuy am mbooloo ba am yaakaar waaye duñ woon lu may jékki-jékki rek euh, mbir mi doon loo xamante ni si dañ ci am mbett mu rëy rëy rëy waaw mbokk yi xam ngeen ne loolu nag suñ su fekkee ne dañ ñu ko gëm gëmloo wala sax ñu gëmuloo ko suñu suñu kilifa loolu du du xaqiqa du réalité ndax li wë li wérte wër mooy euh, suñu kilifa yi daanaka mën naa ne la ñooy taxaw diine ji waaye ñooy taxaw wàllu dund gi ci côté bi nga xam ne moom lañ nekk ndax képp ku fi am kilifa li ci ëpp lépp loo dal moo xam wàllu yoon la moo xam wàllu wu mën a doon ba ci dangaa bëgg kër ba ci dangaa bëgg sa am courant yu ci bari nga xam ne loolu day mel ne wala sax nga bëgg aw yoon loolu euh, daanaka kilifa yi ñi bari ci kilifa yi lañ koy jàmbat suñ ko jàmbatee kilifa yi jàllale leen ko ci kaw état bi état bi it euh, daal di ñoom def ko da ngay gis sax kilifa gi ne koo xamante ne si da ngaa dem bersab dëkk ci àll ba euh, des na la fa ñetti courant yéen la ndox nit la fa aw yoon te loolu du dara lu dul sa baat boo xam ne am nga ko boo xam ne nii moom lañ lay jéem a jox mu mel ne baat boobu nag euh, ñun ñoo ko war a téyel suñu bopp nga xam ne euh, ni nga xam ne ni la askan wi amee yaakaar xam ne tey nit ki bi ñu jubloo la maa ngi lay jox sama bopp adduna ak alaxira nga xam ne addunaam gi ñu ngi koy euh, ni ngay lijjante alaxiraam pour fexe mu jub bañ a am pakistan noonu nga war a fexe it àlla addunaam ji mën a mën a jub mu doon ko xam ne dana dund dund sell ndax dunduk adduna bu sellut dunduk ëllëg mënta sell bari na koo xamante ne si da ngay addunaam yàqu lool lool lool waaye yàqu addunaam googu yi nag boo ko xoolee ci biir biir daanaka day day yàqaale ëllëgam ndax dana muy mel melokaan woo xam ne yow doo bëgg a doon kii te nit ki ku mu bëgg doon muy jullit bi képp ku bëgg ta nuru ku mu rek kooku moom xam nga ne jógut kon boo déggee li ma bëgg a wax rek mooy mbir mi daal waruñu waruñu ne bokku leen ci ñu ne kon bokku na ci waaye loolu nag dafa war a doon loo xam ne ñun ñi nga xam ne ñooy askan ci dund ci réew mii nga xam ne mooy Sénégal nga xam ne dañuy wax ne quatre-vingt-quinze pour cent ñoom ñooy ay ay musulman wala sax quatre-vingt-dix-sept ndax ni ñu ko waxee dafa dafa dafa dafa dafa dafa gën a bari su ko defee ñun ñoo war nag ñoo war nag gën a suñuy bët gën a wax ak sunu sunu njaboot. surtout kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi waxoon naa ko ci ginnaaw suñ mbokki jigéen ñi kenn ku ne xam na ne ñoom am nañ masulité bu bëree bëree bëri ci réew mi te ëpp ci ñi nga xam ne ñooy ñu ñuy woowee politique politicienne sunu jigéen ñooñu li ñu yaakaar lépp ci lañ koy jëlee li yaakaar lépp ci lañ koy amee ndax duñ def lu dul séddale leen ay xaalis ñu di ko defee ay tànn biir di ko defee ay kafe euh, bu bis élection yi jotee ñu fexe ba yang wang wangal leen euh, jël ay nit teg leen fi seen wet ñu leen surveiller bañ wax ne wote nañ wala sax ñu di leen mel ne ku leen di jënd di leen wax bu ngeen ma indilee carte diw ak diw bi nga xam ne moom rek la ñu dagal mu xam ne moo leen di ko war a daaneel su ñu ma indilee aw kartam ma jox la 2000 francs nga xam ne yow day mel na sa baat moom nga jaay ci 2000 francs te waxoon naa ko danaa ko waxaat muy ñun suñu xoolee sunu kii nga xam ne moom lañ nekk boo xoolee sunu dund gi nga xam ne moom ci lañ nekk nii nga xam ne boo déggee ci rajo yi ñuy wax dañ naan mille neuf cent soixante lañ amoon indépendance waaye mbokk yi xam ngeen ni indépendance moom amaguñu ko te indépendance du ay wax waaye ay jëf la ndax ki jël sa maanaam lii ñuy wax liberté jël ko téye ko nga xam ne li nga bëgg moo xam nga xam ne mooy mooy sa diine nga xam ne moom nga bëgg ci sa xol noonu nga bëgg a dundee yow kenn mayu la ko waaw te bu ñu waxee majorité yow yaa ko am euh, yaa ëppale aw nit ba noppi mënoo jóg jël li nga bëgg li nga li nga soxla waaw li nga soxla mënoo koo jël kon kooku boo waxee ne am na am na am na xorriya kaamila loolu euh, day doon kàddu goo xam ne ñuy wax la rek waaye nag kenn ku ne xam na ne ah amut su ko defee nag euh, suñu xoolee am na ko ki wax léegi day dema dem ba indil ñu ay jafe-jafe ñun kilifa yi diine yi ci niñ ko mën a tuddee ndax yaakaar naa ne am na ku ko tudd léegi ci mbiru Makhtar Sarr moom euh, kooku xam nga ne dafay def def li ñu wax dëbaaram li ko war loolu lay def muy euh, wax ci diine di dénoncé loo xamante ne na ne euh, ko fi dee yar-yaral du baax te waxuma la musiba ma mu dal ci kooku waaye ci ñiy dund ñëpp lay dal nga xam ne kooku dañ ko waroon a décorer dañ ko waroon a sargal dañ ko waroon a jàppale waaye au lieu que kami kami waxal nga xam ne kooku moom moo waroon wëlbati ko yóbbu ko yoon yoon jël ko atte ko def def ca ko war waaye déedéet euh, mel ne kooku moo dem dem yóbbu ci yoon te ñëpp xamoon nañ ne buñ demoon ci yoon jafe-jafe dana ndax sunu yoon yi ni ñu tëddee ni ñu ci mbir mi mel nii kenn ku ne xam na nit ñi buñ fa demee duñ fa am ndam duñ fa am ndam boobaa mënees mënees na koo nag atte ci ak ñu waaye ca dëgg dëgg dëgg dëgg suñ demee ba ci biir danañ danañ danañ def beneen beneen anam su ko defee nag loolu mooy li nga xam ne ah kenn ku ne gis na ko kon jafe-jafe yi nga xam ne moom moom moom moom la ñuy nekk te bu ñu toogee day day gën a métti rek ndax bis set ñu war a am luñu ñu war a wax wala ñu war ko def te boobaa Euh, jafe-jafe dana ci am kon nag mbokk yi kenn ku nekk moo war a jël ay matuwaayam ci ci teel def ko xeex boo xam ne nii da doon xeexu benn fan da doon xeexu benn at da doon xeexu benn euh, maanaam euh, seekal waaye da doon xeex bu yàgg comme ñoom nii ñu toggi seen mbir mi ba mu ñor ñu yàkkandu ko ñu noonu la ñu war a jël xeex boobu ñu opte ko téye ko xeex ngir mën a jëmmal li nga xam ne ñun moom lañ war a seq ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàmmaarloo ni ko sëñ Abdou Jalil waxee nag mbir mi fi ñu toll mooy sensibiliser kenn ku ne jël mbir mi def ko ci sa bopp ndax ñoom suñu yuur yi lañ naan suñu yuur yi bopp yi moom lañ fexe fexe ba am leneen lu ñu gëmloo loolee nag moom lañ war a fexe ba ñu ko gëmee ñu dindi ko waaw nga xam ne tey képp ku ñuy wax ci ñu mel noonu bu tàmbalee wax rek ñu xam ne kii li ñuy wax du dëgg kii li muy wax suñu ko waxee ba noppi bu noppee fee fee la koy sànni waaw li gën a métti ci àdduna nit ki nga trahir ko ci ab bëgg-bëggam nga xam ne moom bi mu lay fal lii la bëggoon waaye bi mu noppee yow nii nga ko jiitee waaw mu di ko dund loolu moo gën a moo gën a tiis te ñun la ñuy def képp ku fi mas ci président yi fi nekk kenn ku nekk bi mu fi ñëw dañoo amoon ceeb yaakaar yaakaar ne suñ la suñ la suñ la joxee ngañaay diine dana waaye ba tey bu boo ñëwee rek daal dellu delluwaat buum njàmp yeesalaat ko gën ñoo tegaat fitna ba nga xam ne ay jafe-jafe rek lu lu ci kaw diine dañuy gis su su demee ba ca ba président nam ci attee du bokk nam ci waroon attee su ko ne ku toppoon la mu la ci ba mu bëggee jot ci réew mi léegi nag il faut que ñu wut ñoo xamante ni si nii li ñuy wax seen kàddu yu démb mooy seen kàddu yi tey ni ko suñu ëpp laan wax waxee ne nit mooy kee xam ne lam la wax dimb boo ñëwee tey moom la lay waxaat boo jàpp nit ñi dangoo ko kon nag ñun bu ñu gisee ñi nga xam ne ñun ñoom lañ jàpp euh, dañuy fooye rek jàpp maanaam dangay ngay sax ko koy wax politique daal da ngay da ngay da ngay da euh, maanaam lépp te def li ngay man euh, dëgg la def li nga man sax baax na waaye nag ci anam goo xam nañ te ne si arrangé na diine nga xam tey boo ko defee du indi benn ngaañ-ngaañ-ngaañ waaye soo xoolee mboolem difficulté yii fi am moo xam ci wàllu daara yi la moo xam ci wàllu corona bi nga xam ne bi ñuy tëj jumaa yi la yu ci ne jafe-jafe boo xamante ne si nii duñ sédd diine benn benn benn wàll te wax ne lépp lu dal jullit bu fekkee ne tàllal la ay loxoom suñu borom suñu mën na koo caa saafara waaye gëm-gëm boobu ñun ko gëm-gëm bi am daal mooy raxasoo sel takk masque euh, doo ko dem jaxasoo ji waaye gëmuñ ne buñ toogoon ci daara yi jàng alxuraanu karim wéetal suñu borom tuubaa delluwaat si moom liñ bëgg na nañ ko am musiba boobu du ñu dal ah euh, kon euh, il faut que daal loolu ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax